kon bu ñu doon indi misaal ci borom itte yu kawe yi di ci indi ay échantillon dañuy wax ni ka ci jëkk mooy yonente bi sallallahu alayhi wa bi ñaar fukki at ak ñett la woote taxawal diine yàlla matal diine ci ay loxoom mu nekkoon di ku daan nekk ci activité bu tëppale guddeeg ba ci suba ngoon yonte bi dawul xaar ba bañ di ko fekk fi mu nekk saa bu ma saan dégg ne ay noon ña nga barab sàngam di ko fexeel day jug takk ab arme fekk leen fa ba dañoo jóg loolu mooy it yonte bi dër bi fi nekk xare na ñaar fukki xare ak juróom-ñaar yoo xam ne dem na moom ci jëmmi boppam limub xare yi ñu xare te demut mu ngi toll ci ñeent fukk ak juróom-ñaar yoon saxaaba yi doon ci moom itte jooju Abu Bakar ku ne xam ne borom itte la ndax taxawoo ki taxawal lépp ginnaaw yonte bi sama loolu itte ko man Omar kenn nattalu Osman Ali waaye naka noonu aimmatul arbaa ñeent borom ñeenti ngir yi nga xam ne saa boo tuddee islaam sa xel dem ci ñoom imaam Malik Shafii Abu Hanifa Ahmad loolu itte moo leen ko may ne du ak yaafus sëriñi tasawuf yi Sëriñ Tuubaa tudd muy Cheikh Abdul Xaadir Jilaani imaam Abul ñëpp ju kawe la ñu àggee fa ñu nag moom day école bu ñuy jàngalee itte école bu ñuy jàngalee itte ju kawe la ndax diggante ak yonte man mën na junni at a nanga ite ju kaw weesu loolu ma nettali woon ci njëlbeen gi ni bii yonante bi ñëwee feeñu ko ànd ak ahlu badar ni ko loo bëgg dañu ko ñii nga àndal ci laa bëgg a bokk borom ite ju kaw yi dëgg day seet loo xam ne nit ña ñàkk ite ñëpp dañuy jàpp loolu dafa jomb jàpp ne mustahil la moom mu taxaw ni war naa am te war naa mën a rek loolu mooy ite ju kaw yi ite kaw moom da ngay fekk la nga jàpp ni jomb na nga jàpp ni daa war a taxaw léegi mooy ci ahlu badar la bëgg a bokk te pourtant dox na ci ba suñu borom may ko mu ni shahida lillaahu bi anni waaxidu min ahli badrin yàlla seere na ni kenn laa ci ahlu badr xaafa min il jaahil mu yar ci itte jooju nag magi murid yi ak doomi boppam yépp tàmmulee ci Cheikh Mouhamadul ci al Cheikh Mouhamad al Murtada ñoom ñëpp itte ju kawe ji suñu laa daan doxe fàttewu leen ko kenn xam ku ne xam ne ko dem ba am juróom-ñett fukki at yu tegal ba noppi nam daan doxee sensé wu dara loolu itte ju kawe lay teg Sëriñ Saliou bu bëkk de dem na ba yootu juróom-ñeent fukki at mbaa ginnaaw bi ma amee juróom-ñeent fukki at la jënd deux cent vingt tracteurs ngir yéene woon a bay suuf sëpp est-ce que ko bay ngir àdduna itte ju kawe la ngir mu yàlla li mu doon wut nii ci ñaari fan ñett ñeent juróom juróom benn da nga koy wut ba ngi cent vingt tracteurs ngir am yéeney bay suuf sëpp loolu mooy itte ju kawe mu daan soññ lool gone yi tarbiyewu ci yëpp yokk seen it ni leen sa law de ba muy nekk Thiès daanaa julli fajar ba noppi génn toog ci bunt bi waaye nit ñi may romb ñii di daw ñi di waaxu yii saa mu ni nit ñi am nañu ñu yàkkam sax ba jël seen doogu mburu duñ toog talatoo sax di ndekki dañ koy jël di lekk di dem mun leen te ñooñu dem mu ne adduna képp la ñu wut yéen di wut adduna alaxira rek kon farlu gu ñooñu farlu rek war ngeen ko dolli dolli seen farlu te loolu mooy sandwich dañuy natt leen sandwich bi nit ñi lekk mooy xar mburu mi def si loolu Sandwich turu benn tubaab la bu ñuy wax John Sandwich la tudd John la tudd Sandwich moomu Angleterre la dëkkoon dafa doon ku daan ñi nañ def daan carte rek ba bëggut a jóg ci taabal ji mujj wax nañ ko xaral mburu mi rek mu di ko lekk léegi ñeen ni déedéet dafa ñu xar mburu mi jox ko muy dox dem ñu dem ba bu ñu ne Sandwich xel yëpp dem ci mburu moomu ñu xar waaye fekkee turu nit la nit ku amoon été dara mu ñor ko rek la ma ne lu ñuy jàngee ci loolu yi sëñ Saliou def ba dem ba am juróom-ñeent fukki at noppi jënd ñaar simili tracteur fas yéene bay suuf si loolu lan lañ ciy jàngee danañ ci jàngee ni itte ju kawe la yor tey jàngale itte ju kawe waaye danañ ci jàngee it ak déggam diine ci ne diine yemul rek ci kàbbar julli mbaa nga woor jël jukki bi jàng mbaa nga yor kurus di wër waaye liggéey ak jaamu yàlla loolu la ci liggéey ndax yonent bi dafa waxoon ne. ku ci yoroon njëmbat di ko waaj a jëmbat bis penc taxaw nii boo mënee fexe ba gaaw jëmbat ko balaa bis penc taxaw defal ndax ab yool dana la fekk payu yàlla la cay fekk kon dégg gum dégg xadis boobu moo tax mëst décourage te buñ xoolee histoire àdduna ba histoire àdduna jeex li fi taxaw lépp borom ittee ko yëpp fi taxawal xalaa qadri ahli al azmi tati al azaimu wa tati ala qadri al makarim fi وتصغر في عين الصغار في عين في عين الكبار takk وتكبر fi عين الصغار صغارها mu ne léegi adduna mbir yu rëy yi mi ngi ñëwee ci kam ni nit ñu rëy ñi toll wax ni nag dadi nag nit ku tuuti lu tuuti day rëy ci waaye nit ku rëy lu rëy day tuuti ci moom borom itte ju kawe dëgg it du sànq waxtu du xool wax ju jëf ju war a jëf tey mu ne ko bàyyi ba suba wala li nga war def ci suba nga bàyyi ko ba ngoon mbaa li nga war def ci suba nga bàyyi ko ba ginnaaw suba loolu borom étude ju du ko def borom étude ju kawe bu ne heure bi mu toll daf koy fixé fas yéene dara du ko ci rëcc ndax maa mada faata wal mu amalu xaybun wala ka saatu lati ànd fi àdduna lu la raw raw na la li ñëwagul ñëwagul tey képp ci am tey moo tax fokk nga fonk tey jooj yi ñi am étude ju kawe dañuy dund wax ji yonte bi waxoon ni juróom a ngi ni yoo xam ne na ngeen ko respecté ndax juróom a ngi ñëw ci ginnaaw mooy booy dund na ngay exploiter dund gi ndax dee ngi ñëw boo amee wér góor góorul gaaw def ci lu baax ndax wér dee ngi ñëw boo féexee am jot fexeel ba gaaw exploiter ko ndax ñàkk jot a ngi ñëw boo doonee ndaw fexeel ba exploiter ko ndax ak mag ngi ñëw boo amee koom gaawal jariñu ci ndax ñàkk ngi ñëw am koom dafa dabanteeg nit ci kaw yoon benn nit ki romb ko jàll mbaa moom mu romb nit ki jàll am koom dafa gaar rek koom nit ki lu mu womal womal benn mu dee bàyyi ko fi mbaa alal ji dem bàyyi ko fi suñu tool daan wax ni adduna lu fi nit am lu rëy rëy bu nelawee fàtte ko bu dee ñàkk ko loo fi am lu rëy rëy boo nelawee fàtte ko boo dee ñàkk ko moo tax sëñ Saliou daan def bu ma saan jóg sax nga bëgg ko jàppale mun la ëpp naa ndax ak télé kenn du ko gàttal ndax saa bu ñëwee jot day sëkk ndeke nit lu mu mën rek na koy def parce que télé moom mi ngi ñëw jërul sax gàttal jërul yàggante da ngay télé boo fi yàggee da ngay wax ne ak télé kenn du ko gàttal ndax saa moo tax fonk waxtu am na ci borom xam-xam yu jëkki ñoo xam dañoo fonkoon waxtu am na ci benn borom xam boo xam ne toog na di liir di liir di liir sonn si ñëw ni ko léegi reer bi mu ne ko xaaral tuuti muy liir mu dem bu jaaw soxna si ñëwaat ni ko reer bi mu ne ko dem ba gëmmentu ñëw indi reer bi jël kuddu gi di ko ko leel ba mu ko leelee ba mu lekk ba noppi mu ba mu lekk ba noppi mu jël ndox jox ko mu galax ko ñoo ngi toll woon rek ci waxtu nu mu ñore ci boroom xam-xam yi may wax ne am na ci ñenn ci boroom xam-xam yi ñoo xam ni daana ñu gëstu xam-xam ba fàddu ci biir gëstu boobu am ci kook day gëstu di liir ba soxna si ñëw ni ko reer bi mu ne ko xaaral tuuti mu demaat ba ci kanam mu ñëwaat ni ko reer bi mu ni ko xaaral tuuti mu di ko def ba soxna si gëmneentu mënut sa toog mu indi reer bi jël kuddu gi di ko ko leel ba mu noppee mu jël ndox jox ko mu gàllandiku mu dem tëri ba mu tëree ba fajar mu mu jóg ni ko indil ma reer bi mu ne ko ah, reer nga bu yàgg de ngir itte ju jum jox la mu nekkoon am na ci ñoo xam ni joxoon nañ itte waxtu waxtu ba àgg ci diir bi ñuy dugg ci wana wi sax ñàkk a continuer dañu doon def ak yàq lañ ko jàppe ba fañ toll woon ci ab liir dañuy jox nit mu tollook ñoom ca wetu wana wa di yëkkati kàddum ci kaw ñuy concentré wu digg loolu muy wax bu dee ci wàllu jaamu yàlla it itte la nit di def fokk nit nit ki jox ko itte ba fuñ cee àgg mën ca àgg ma ne am na ci nit ñu jëkk ña saxaaba yi ak sëriñ su jëkk ñoo xam dañu daan def bi set dañu wàcce ab kaamil ci alxuraan la bi set dañu wàcce kaamil am ñoo xam daanañu wàcce ñaari kaamil am ñoo xam dañu wàcce ñetti kaamil am ci ñoo xam ne ñeenti kaamil ci bis bi am ñoo xam daanañu wàcce ba juróom-ñetti kaamil ci bis bi daanañu ko wàcce waaye ju kawe lay teg itte dafa dàqonte ak topp bakkan dafa dàqonte ak topp bakkan moo tax sëriñ bi ne al ak la xallil wal manaama yaa murid wala tuxaalit alladi la say fit mooy na nga néewal sag lekk yow murid bi néewal say nelaw néewal sag jaxasoo ci lu amul njariñ kon euh, xam ittey borom itte yu kawe yi dana yokk itte am na ñaari nit ñoo xam ne dañoo àndoon ni dañuy wuti ku leen yóbbu ci yàlla ñu wax ni ñu dem ba fekk nitu yàlla koo xam day liggéey ci cere cere lay defar ñu ne ko dañoo bëggoon gërëmu yàlla bëggoon xam ànd yow liggéey mun leen ci lii laa nekk bisimilah kenn ki di taxani matt mi kenn ki di xambu taal bi sëriñ bi di liggéey cere ji waaye bañ ko defee diir bu gàtt kenn ki topp sëriñ bi ci ne ko damaa bëggoon nga jox ma sirru nga jox ma mbóot moo xam ni dinaa ci mën a amee li ma bëgg daal li may bëgg lépp day leer mu ne ko damay bañ su ma la ko joxee nga bañ koo àttan mu ne ko jox ma rek ba mu ko sonalee mu wax ki mu àndaloo ne ko ndax ndax ma jox ko ko mu ne ko waaw jox ko bu fekkee sa xel nangu na ko sëriñ bi yëkkati sirru bi jox ko ko ñetti fan la fi amaat ci àdduna faatu waa ji jël ab sirroo moom daal dem ba mu demee am kas kasfu am fatu yëpp mu am di ñaan muy nangu nit ñi fàq wut si ka ca des moom des fa ak pas fas yéene liggéeyal sëriñ bi ci njaboot gi mu fi bàyyi sëriñ bàyyi na fi soxnaam ak ñaari doom yu jigéen ak benn doom bu góor mu continuer di liggéey ci cere jooju di leen ci dundal di leen ci dundal ba soxna si rakki sëriñ bi takk ko dund boobu wàcc ko muy liggéey di leen ci dundal ba ñaari doom yu jigéen yi sëyi seen dund wàcc ko mu continuer ba sëñ ba doomu ju góor ja fa nekkoon des dem dem euh, gàddaay moom dem dem boru sow dëkk ji fa mu daal xam ne kon wàcc na mu jógee fi dem ca barabu sëriñ bi di ko tàggu ji ba mu ñëwee ba ca barabu sëriñ bi toog fi suba ba yor yor ba mu jógee bëgg a dem cofeel gi jàpp ko bu mënti dem mu dëppaat toog dem ba digg bëccëg mu dem dem dem mënti dem mu dem ba ngoon dem ba fanaan fa bët set wecc ba mu xëyee di dem nag la dajeeg xadir mu yëkkati sirru jox ko ni ko sirru baa ngi ni mu dem ba ci yoon wi mu romb ab dëkk boo xam ne dañuy taxan mat di taxan di dajal tax mun leen lu mu doon ñu ngi defee am ku xam dañu ko war a rey ko mun leen kum doon ñu won ko ko muy mbokkam moom yee laajoon sirro ba ñu joxoon ko mu moom nee na xàmmee naa ko waaye moom xaal bii mu nekk tax na xàmmeetu ma ma laaj ko ni ko waaw loolu andi fii mu leen ah dama leen wax mu ne ko dama leen wax sama dëgg ñu ne ma ab yéefar nga bëgg maa mu ne ko loo leen wax mu wax la mu wax mun leen def leen ndànk bu leen ko def dara ma gis buur bi ku leen ko yaay looyu ñu ne ko buur bi mu dem ci buur bi ne ko yow yaa joxe ndigal ñu rey diw mu ne ko waaw ndax boroom xam-xam ñoo àtte ne dañ ko war rey ndax dafa wax dafa wax njaaxum goo xam daal rey képp dañ mu ne bool bi lan dinaa la ko xamal mu ne ko mu ne ko nit ku ne suñu borom boole na ko ak ñetti téeméeri malaayika ak juróom-benn fukk mm. ñu di ko garde gis nga bakkan boobu boo waxee ba rey ko malaaka yooyu fu ñu toll di tudd sa ñaawteef boobu nga def te saa bu ñu ko sikkaree dañ la koy bindal mu doon ñaawteef bu war bu la war ndax attan nga ñaaw lu toll nii mu ne ko déet malaaka borom xam-xam ñoo àtte ne dañ ko war mu ne mun leen léegi lu tax ngeen ba ko rey ñu ne ko dafa wax loo xam ne ak kéefar dañ ko war rey mun lu mu wax ñu leeral ko ko mun leen bu leen gaawtu da ngeen koy woo mu ñëw bu fekkee li mu wax zahir si tekki na ne ab yëfal lañ ko war a ngeen laaj ko lan la ci jublu lam ci jublu bu dëppoo ak ak kaw ngeen rey ko bu dëppoo wut nag ngeen ngeen xam nag léegi yéen a jaawale ñu ne ko loolu da baax daal di wooyi borom wooyi waaja ba mu ñëw ñu ne ko lii nga wax la ci jublu mu wax lam ci jublu mu doon lu leer lu ñu mën a dégg noonu la ko soowee moom ma yëkkamti wutam pour war leen la léegi yoonu yàlla itte ju kawe la laaj ak ñàkk a yàkkamti tax sëriñ bi dafa wax ne wala takun lil fatxi da stijaali li annahu l maxiidu lil rijaali ak fatxu te mooy dem ba mbooloo mi faq wut si la ngay ñaan muy nangu ñi di ñaan loolu lépp ëpp naa yaakamte ci tasawuf la wax ndax loolu dafa mel ni mbërët ci nitu yàlla daf lay gàllan ko kon ñu daaneele rek wax ni li ñuy jeexale mooy wax ni borom itte yu kawe yi di leen jàngat dana maye itte di leen xam dana may étude dina xam it nga xam fi nga toll yow ndax yow bu fekkee da xëy di jàng juróomi si par bis waay ci ba jàpp ni yow naaw képp la des ñun la am na ku daan wàcce juróom-ñetti kan par bis da nga xam ne meeta doxagoo dana la soñ te it nag am na cër yu kawe yoo xam ne muy cëru àdduna muy cëru alaxira am na cër yu kawe yoo xam ne bu nit àgg ci ñett yi mënta ñàkk mënta mënu ko ñàkk boole fokk mu am pas bu dëggu fokk mu am itte ju kawe fokk mu farlu fokk mu am jom yii moom pour nga am martaba bu kawe moo xam mbirum adduna la moo xam mbirum alaaxira la fokk nga boole ñeenti mbir danga am pas-pas yi da ngay wut danga am itte da nga farlu da nga mën a muñ am jom te it dañuy wax ni àll bu Afrique bi boo fi demee ñaari mbir nga fay fekk ñaar gaynde gi fa gaynde gi fa nekk ak kéwél gi gaynde gi bu mënta daw lool du dund kéwél gi bu mënta daw lool du mucc kon foo mën a toll rek xel yi moom dañu ko soxla ci yow booy gaynde xel yi dañu ko soxla ci yow booy bi dañu ko soxla ci yow kéwél bi dañu soxla bi dañoo soxla ci yow xel wi gaynde gi dañoo soxla ci moom ab aw xel kéwél gi noonu gaynde gi bu mënta daw lool du dund kéwél gi bu mënta daw lool du mucc kon foo mën a toll ci àdduna rek aw aw xel lañ soxla xel wi bu mu taxaw mu taxaw mukk ci àdduna ma daaneele xissa boo xam ne sëñ Seexum sëñ Saliou moom ko nettali bu yàggul nee na sëñ Blaat ak koo waxoon sëñ Blaat nee na nee na sëñ Blaat dañu koo sëñ am sa def ko wax ne ko ndax seeteegun nga sa bàyyi Cerno siyaare jegun nga ko na ma ne ko déedéet mun ma na nga dem siyaare ji ba ma siyaaree borom daaru mu ni ma ba ma ko tàggoo bay dem mu ni ma mën naa laa joxum sàq mën naa laa jox um fas lu ne mën naa la ko jox waaye nag du ma la jox loolu li ma la jox di lépp lu sa baay am moo ko ko may te loolu de benn baat képp la muy lan muy jom jom daal mooy li nga xam ne fu sa baay àgg moo ko fa àggale jox naa la baat boobu nangu gànnaaw yow jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. macha allah macha allah.